asalaamaaleykum mbokki téléspectateur la 2STV maa ngi nuyu ku ci nekk turam ak santam actuellement nag maa ngi wat encore ak yéen ci seen émission elles sont toutes belles maa ngi parcelle Dior xaaral ma woo sama belle du jour ndax mbedd bi neexut a taxaw temps yi Seydou ci naaj bi rek la may teg ak fi bëri oto waaye yow xoola bàyyi sa reetaani de <laughs> Seydou kii reetaanam neex na de allo salaamaaleykum. Marème na nga def. ça va yaa ngi ci jàmm. man la Eva ak waa 2STV ak waa Darlin. ak si naa actuellement parcelle maa ngi joor wetu fi nga ma waxoon. Ah, um, waaw. maa ngi ko ah foofu ci buntu bi la kon génn si boog man maa ngi sa buntu kër alors. waaw d'accord maa lay xaar ok. allez Baye Fall naka mu Seydou. sama belle du jour fii la dëkk tey moom dana ñëw ba ci buntu këram xamante ni moom mooy Kër Massar euh, ci salon de coiffure Marina coiffure nan dem ñu seeti ci biir mami ñu xool tey ban produit la daax leen indi ñu jaar roq bi wala ñu def ñooñu def grand tour ñu jaagar jaagi surtout jële sama jaagar jaagri damay défilé <laughs> dama namm pojo <laughs> salaamaaleykum ani waa salon bi. ñoo ngi nii mami. oui na nga def ça te présente la belle du jour. Ah, taxawel nii suñu digg. ça va jeex ndax mami day bañ gàttaayam feeñ. waaw <laughs> gis nga. <laughs> non garaawul du feeñ. belle bi dina taxaw ci diggante bi alors na nga def. ça va alhamdulilah ba yaa ngi ci jàmm waaw ñu ngi ci jàmm. ani waa Kër Massa. ñëpp ngi fi. naka liggéey bi. ça va ñu góorgóorlu. Ah, la mu mën a wax tuuti ci liggéey bi ak corona bi. ba ça bien marché ou pas du wala un peu. un peu vraiment waaw. mais sant yàlla quand même. alors mami dis-moi euh, baax bi solo leen fi waaw tuuti nag sonal nañu tuuti. Mm. waaw vraiment li fi am moom mosu fee am. waa gunóor yi nag egsi na fi de ah. <laughs> non mais Sénégal temps yi gunóor yi. a ah, en tout cas ak tàngaay bi lépp daal ñun canicule la ñuy dund. ah métti na daal. en tout cas doy na wax alors mami dis-moi ban produit la la Darlene indil tey. ah Darlene tey mu ngi ma indil Jalika. ah Jalika waaw Jalika couleur euh, T1 27 vraiment pour sama reine bi ma mën ko ci defal lu rafet. lu tubaab c'est magnifique lan nga ci bëgg defal suñu belle du jour bi. ah moom macha allah ma dafa rafetlu paille. waaw waaw waaw léegi dañuy def lu tubaab comme dafa tàng. Mm-hmm. et tout ça dañ ko ci tegal. teg bu rafet rek. d'accord léegi kon ñu bàyyi la ak suñu belle du jour. waaw waaw donc. Euh, alors mami. oui ban coiffure nga réaliser suñu reine du jour parce que on dirait que actuellement pare na. sama reine du jour tey ngi ko def euh, tête folle def tuuti. pardon yaa ngi ko defaral. tête folle tête folle moom mooy la tête folle bi mooy nii ma def nii ci kaw. Ah. xaw a génnee salañ bi comme tubaab bi ñoom tête folle lañ ko tuddee. en fait uh-huh, waaw ñoom loolu mooy seen coiffure boo xoolee boo xotee jalika bi macha allah. loo ko def rek day dem. Uh-huh. aw ma ci benn problème ma def tuuti mouvement ci kanam bi. Uh-huh. Euh, ni daal laa ko defee tey macha allah tàngoor bi. dégg ngeen ni ko mami waxee da ngay ñëw jël teg mu boucler boppam bu la neexee muy coiffure boo bëgg mën nga ko ci réaliser que ça soit les mariages les baptêmes les anniversaires coiffure de cérémonie boo bëgg rek mën nga ko def ci li nga xamante ni moom mooy greffage jalika bi te greffage jalika fépp foo xamante ni foofu la ñuy jaayee mèche d'arline boo fa demee di nga ko fa am et en plus comme j'ai l'habitude de vous le dire ça ne absolument rien jarul dara dafa yomb macha allah ndax les meche d'arline dañ fi nekkal jigéen ñi te ak ñoom bu ñu leen toppee rek dañuy tàkk ba yàqu. alors mami lan nga ma mën a wax un peu ci Marina coiffure. Euh, Marina coiffure dañuy def lépp. Mhm. dañuy def pédicure manucure soin de visage lépp la ñu mais suñu spécialiste en fait suñu spécial mooy que ne traitement de cheveux. d'accord. gis nañ ne léegi xale yu jigéen ñi dañoo négliger traitement bi tamit dama ko relever waat ndax xale yu góor yi dañoo bëgg karaw nag. ah ah eh mami yaa ngi may xas nag ci pet xaaral ma wax samay dox. <laughs> man mi nga xam ne ba ma fekk maa ngi xuuf mu naan xale góor yi dañoo bëgg cheveux kon daal loolu mooy man sama bopp kenn ci jaar mais garaawul gis naa sànni xeer yi amul problème continuer <laughs> lépp la ñuy def fii macha allah ku ñëw di nga kontaan. Uh-huh. maquillage yu simple ongle yu rafet vraiment ñun daal ci tubaab la ñuy yëngu ci lu am classe. macha allah macha allah alors. <laughs> donc mami dis-moi exactement adresse bi fan la nekk ak numéro téléphone bi. ok ñun ñoo ngi fii Mame Dior. village 147. cité Mame Dior numéro téléphone bi 77 766 41 61. voilà dégg ngeen ko nee na moom mi ngi cité Mame Dior fii ci Kër Massar. alors mami koy gërëm tey ak koy sant. ah macha allah dama koy njëkkee suma waajoo yi nag. ndaxte su ma demee ba yegg si fii ñoom ñoo ma jàppale. macha allah particulièrement ma maman chérie mon papa. sama sama tata Anne bon ñooñu maa ngi leen di remercier ak sama tata Rama ak surtout samay clientèle. ma am clientèle yu fidèle yu baax macha allah. maa ngi remercier samay voisine mhm. di remercier madame may mi nga xam te ne dafa dagg léppam vraiment ñëw yenn si ma sama. rajo bu baax bi mooy sama goro ah, vraiment moo jaax ci maquillage bi ak sama élèves yi. Uh-huh. di remercier lamp sama sama càmmiñ boobu nga xamante ne macha allah moom moom ci lu ñuy avancer loo rek la ñuy la ñuy ubbil. Mhm. te vraiment c'est pas la première fois. di remercier ñëpp nag parce que ma lim. maa ngi yomb sama tante bi nga xam ne moom moo ma yaax. ak sama jëkkër dañ leen comprendre vas-y et eh, chérie kaka bi doo fi jooyee nag. monsieur Sangaré maa ngi koy gërëm. vraiment moom tamit jàpp na ci affaire yi. Euh, sama jëkkër. maa ngi koy def un gros bisou mon amour. <laughs> ak samay goro samay jëkkër ah tu dis chérie je t'aime. chérie I love you. ay remercier samay ah. goro samay njëkkee ak sama rakk ji nga xamante ne vraiment tey moo géré lépp bëggul feeñ Fatfal mm. maa ngi remercier Sali Anne sama grande dame boobu nga xam ne lépp loo mën tey ci coiffure macha allah moom la maa ngi koy gërëm di ko sant képp ku ma waxul dama ko fàtte mais maa ngi remercier ñëpp samay voisins surtout kaawalaay ñoom ci la ñoom ñëpp ñun aussi ñu ngi lay remercier bu baax a baax mami olof neen lu nekk ci biir xol yi rek day feeñ ci biir kanam mm-hmm. te bu ngeen ko xoolee dafa wax tey ba jooy parce que xolam moo fees mais yéen a ko mën a comprendre man maa ngi lay remercier bu baax a baax di remercier ñi nga xamante ni ñëpp fekk naa leen fi ngeen teeral ñu non mais tey fi mu génn macha allah tegal ñu añ boo xamante ni day wax ni nit mami merci beaucoup dégg nga <laughs> gis nga añ bi dama ko def mu nekk añ bu spécial jël poulet yi mooy loolu. macha allah wala jaru ko. non jaru ko <laughs> jaru ko de ah. jaru ko garaaw de toute façon en tout cas kontaan nañu trop vraiment maa remercier bu baax a baax. ci yendu bi nga xamante ni yendu nañ ko fii ci Kër Massar. et puis euh, ñun duñ fi yam damay ànd ak sama belle du jour toujours ñu dem foofu nga xamante ni mooy si Plaza ñu seeti Ebino Couture ak bijouterie walla chers amis téléspectateurs de la 2STV jóge nañu Kër Massar actuellement agsi nañu fi nga xamante ni moom mooy si Plaza ma nar a toog jàkkaarloo ak sama belle du jour ñu nar waxtaan man ak moom pour xamante ndax depuis ce matin ñu ngi nekk ñu ngi ànd ñu ngi wër fu nekk dem nañ fa mais xamante wuñu bu baax alors Mariam na nga def. mooy Eva. Mariam loo sat. Dieng. ban Dieng la Dieng fan. Dieng de yéen. yéen yéen fu mu nekk. jam oh, ñaajo. ah ok soriwul Dakar. Mm-hmm. effectivement alors Marème xam nga tey ci suba euh, dama ñëw sa kër jël si la ma gis lu ma neex ndax dama la gis nga am benn entente boo xam ne ak ki nga xam ne mooy sa yaay jëkkër mooy sa goro te bu ñu xoolee jamonoy tey xale jigéen yu bëri ñu dem sëyi kër goro yow loolu noo ko gisee. foofu moom boo ma si waxee dama si sawar tontu goro mère Henriette si soxo borom GP bu baax boobu xam nga dafa baa ñëw uuf ma nii njabootam. en plus ma nekk goraam mu bëgg ma tolloo yemelewu ma dara. waa mais xam nga des fois da ngay gis xale jigéen yoo xam dañuy wax naan goro yi dañu bëri problème des fois nga gis seen goro yoo xamante nag dañu fiir duñu bëgg bokk seen doom yi seen doom yi bu takkee jabar rek pour ñoom ñàkk nañ ko. c'est que ku nekk boo xoolee sa yaay ni la yaree boo demee kër jàmbur di nga nangoo dund ak yaay jàmbur te alors que dama xool ni sama yaay yaree ma sama umpaañ yar ma après damay mën a accepter dëkka yaay jàmbur te mooy sama yaayu jëkkër ko alors que ni ma bëggee sama yaay dama koy bëggee sama yaayu jëkkër effectivement kon daal gëm naa ne en gros mooy ni nga jàppee sa yaay boo ko jëlee jàppee ko sa yaayu jëkkër rek di nga sëy si sëy bu neex macha allah sans problème man maa ngi lay ñaanal ñaanal yàlla jubóog sa goro amiin yàlla ngeen yàlla bàyyi la sa sëy bi tamit nga dund ci am ci njaboot yi barkeel incha allah alors wax ma tey noo passé sa journée ak man ak Salor Euh, Marina coiffure Kër Massar. yii journée bi moom neex na macha allah dem nañ Kër Massar Marina coiffure defal nu coiffure bu rafet bi nice na. avec Jalika. Jalika bi moom oyof na boo ko tegee da nga mel ni tegoo dara macha allah da ngay santi sa bopp daal rafet na trop. te ñëw leen jëndi ko daal greffage bi moom am na góor. effectivement gis ngeen Jalika bi rafet na civilisé na te dafa defar boppam ba pare moom dafa boucler boppam ba pare pour vos pour vos coiffures de cérémonie moom mooy mariage muy baptême muy anniversaire muy lu mu mënti doon bu ngeen demee jënd Jalika bi mën na leen ci defal queue de cheval mën na leen ci defal coiffure tey comme bi Marina bi mami réalisé Marina mën na leen ci defal coiffure de votre choix yéenay xool nu mu leen neexee rek. jarul dara ci en plus fépp foo xamante ni foofu la ñuy jaayee mèche Darling rek bu ngeen demee di ngeen ko fa fekk man nee naa leen à chaque fois que Darling génn foo xamante ni daf ñuy arrangé ñun jigéen ñi ndax bu ñu xoolee léegi ci jamonoy raktak la ñu nekk jamonoy cak-cak la ñu nekk nag na lépp gaaw rek ñu dem mi ngi noonu <laughs> alors Mariam dis-moi euh, Ebeno Couture nag dama bëgg nga jóg taxaw. maa ngi nii damay fël-fëlaale ah. sànneeku. Ah, waaw ñii daf may neex nga jóg sànneeku. gis nga. bi la Evino moom def na ba mu baax def na ma jongoma nii. takk na ba yaa jongoma fii ci si Plaza bu ngeen ñëwee dingeen fi fekk Binta wala madame Thioune mu solal leen ñu rafet te ko am sa tissu aussi boo bëggee nga indi ko mu jox la ci egg mu euh, jox la ci conseil daggal la coupe bi nga bëgg boo ko amulee prêt à yaa ngi fii di tege boo ñëwee nga tànn bu la neex ci ay njëg lu yomb nga sañse nekk doon nag une grande dame. alo li nga xamante ni moom mooy bijouterie Serigne Babacar Sy xam nga man dama bëgg oor te mu ngi la takkal jaaro yu rafet. or bi moom macha allah bijouterie Serigne Babacar takk nañ ma daal ba yàqu. xale bu jigéen bu takkul or na la wóor na nekkoo ci temps teguwoo ci temps ah. <laughs> donc gars yi bu ngeen bëggee tegu ci temps bëgg nekk au diapason benn adresse kese la fii ci si Plaza moom mooy bijouterie Serigne Babacar Sy bu ngeen ñëwee di ngeen fi fekk or yu rafet yoo xamante ni yomb na c'est pas cher et la portée de tout le monde bu ngeen amulee njëg gu mat sax bu ngeen ñëwee ñu ubbi leen compte ngeen di verser petit à petit ba ba muy mat ñu jël seen or jox leen ndax nee nañu investissement yëpp mën nga ci ñàkk ba mu des or ndax o bis boo ko takkee ba neexatu la bu la neexee nga jël ko def ko xaalis boo ko defulee xaalis bu ko indi ñu changer la nga xool ci beneen bu bees bu génn ñu jox la kon nag euh, daw si leen léegi léegi ñëw ci bijouterie Serigne Babacar Sy ñu mi ngi fii ci biir si Plaza di leen xaar alors Mariam koy sant ak koy gërëm. avant maa ngi gërëm sama yaay di ko sant di ko gërëm yar na ma tete na ma man daal sama yaay moom macha allah. macha ba mu defar ma daal teg ma sa éducation yu baax ku ma gis. du ma du ma gis kenn ba ñee ko mu yar ma tamit yar bu baax en plus di yar sama umpaañ Awa Diouf madame Sow depuis 2007 laa jóge sama yaay après moo ma yar tëngee refus bi ba mu ñëw sëy si asalem Grand Médine lu ma manti mel tey jii moo ak sama nijaay Mbay saw ma leen di remercier bu baax a baax Naba Diouf dem Sembène <laughs> ñoom tamit ñoo ma yar jàpp nañ ci yar bi macha allah bi ñu ma yaree ba gisuma rëccuwuma ci lenn lenn loo xam ne tey jii mooy loolu. yar nañ ma daal ba ñu may ma dem sëy kon maa ngi leen di nuyu di nuyu sama maam <laughs> yaay booy sa États-Unis maa ngi koy nuyu yal yàlla guddal fanam. amiin amiin may gudd fan ak wér gu yaram. waaye bi du nuyu sama jëkkër <laughs> Mohamed Sy. waaw gannaaw bu ma ñëwee fii yàlla moo ma moo ma bàyyi te ji moo bàyyi woon àdduna du yàgg bu mu ñëw fii def émission aw ma fir bi <laughs> di nuyu sama goro sama goro moom maa ngi koy bàyyi yàlla. di ko ñaanal yàlla liggéeyam bi yal na ko yàlla bàyyi ba si kanam mu koy liggéey di liggéey di liggéey ba ñu koy weer ak di nuy sama njëkk yi tamit binta si France <laughs> ma lay nuyu lu bëri lakkal ma bay bëgg dee di nuyu sama magi jëkkër yi sama rafu goro bi taan day xadi di nuyu sama ay copine ku lim juum nuyu naa samay copine ñëpp samay cousin samay cousine di nuyu sama papa <laughs> nuyu naa ñëpp Koundou Diouf nuyu naa ñëpp képp ku sappo Ndeye Marème rek di ko bëggee rek nuyu naa la. Euh, Mariem est-ce que xam nga ni fii ñu dañu am benn tradition boo xamante ni waa Darling comme dañ naan Sénégal pays de la Teranga. Mhm. ñun chaque semaine suñu belle di jour dañ lay préparer teranga. merci lii nag dañ koy tuddee teranga daal di yaa ko merci beaucoup Eva. donc euh, man moom euh, du ma quitter sans pour autant remercier encore une fois équipe salon Marina coiffure. nekk foofu nga xamante ni moom mooy Kër Massar di nuyu mami avec tous ses élèves yéen ñëpp maa ngi leen di sant gërëm naa leen euh, on a passé vraiment une très belle journée ak yéen ngeen jël suñu belle du jour bi defar ko yàq ko caxat caxatee ko def ko ba mu doon jongama bu ndaw macha allah tey monsieur bu la gisee dina kontaan. <laughs> en plus di ñëw fii ci si Plaza di remercier ki nga xamante ni moom mooy Binta Ebino Couture ñu ngi koy euh, gërëm bu baax moom auti si cub bu baax bi nga xam ne solo naka suñu belle du jour di remercier aussi bijouterie Serigne Babacar Sy toujours nekk fii ci si Plaza ci bijoux yi yaa ngi am maana yi nga xamante ni takkal naka suñu belle di jour mais aussi du madame jamais sans pour autant dire un grand merci à notre sponsor leader ñoo kooku nga xamante ni moom mooy waa Mèche Darling équipe Mèche Darling yëpp ñu ngi leen di remercier di leen gërëm di leen sant Donc moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une autre belle du jour. Mais comme j'ai l'habitude de vous le dire, ne bougez surtout pas. Les programmes de la 2STV continuent.